famille Pape Seck sagal leen ma di may géwél yi sagal leen ma dee leen andaa waaw waaw gaa yi ah, nag Bébé Wally Bébé taxaw nii xale bi ngay dajeel <laughs> eh, da doon yooru waaye yem nga li booy naan bii du yooyu mais gëm naa ne bii du yooyu de amoon nga fi ñaari ndam waaye ki nga dajale paquetas paquetas déet gis ngeen gis ngeen sànq ñu ko fi def tagadaas kaay wéy ma yow xam nga ni mu demee kaay waaye damay gaayan ngeen nag loolu moo tax man moom gëm naa ne bii du yooyu mais du ma tudd turu kenn mais xam naa ne bii mais bii du yooyu de mais maa lay ziar waaw ñu lay ziar di la fay di la jox sa di nuyu waa salle bi ñëpp teew di nuyu di nuyu Mor Diouf di nuyu ñi ma àndal sama gars yi maa leen bëgg bu baax baax hmm.

police yi di len nuyu di len siyaar di len jox sen wàccuwaay way booy boy bi diko wax ni tët mi diko ñaanal wër ak wër le ba suur bar bi sifle ba gar xam ne di nga taf sa gem boy bi daw laaxu la du ma wax ak moom wax ju bari sax moy yàpp barki allah ji fallu Mbacké te buñ bëré wo pare dina ko wax lu tax ma ne ko daw laaxu la boy bi xamul fu mu dëkk sax man ma borom fukki penj ak ñaari man diggante Géejawaay ak yëmbal laa dëkk fu ma fu ma neex damay jaar barki Baye Karim maa ko ëppale yëmbal. boobu boo xëyee yàlla naa dee waaye yëmbal luñ daw laax booy deret bi kenn du ko rax deret jàmbaar la de barki allah ji fàllu Mbàkke kenn du ko rax. teel ma bant bant bi teel ma ko tuuti bi pénétrage bi la foo jaar lekk si jàngat bi. yaa ngi dëgg sa yaram bopp tey munoo gaa yaa gaañu rek. munoo maa lekk loo jàngat maa la bu coow di profité nag di nuyu waa 100 mètres samay gars yi fa nekk di nuyu ay ñoom Dalaay Wade ñoom Fee Njoy bi ñoom Papa Touré di nuyu waa Tiwaawoon di nuyu tëddee 100 mètres la koo jegaan di nga ko tëddee ñu ne di nga ko xalaatee ñu ne la kat di nga ko bandi doole bu dee yërmande ngay wut si làmb ji di nga daj lu xeex di nga bëre allah ji fàllu mbaag te su ma la jàppee nga xam ni lépp dëgg la. te bant bi téye ko jàpp ci rek. wala fu mu nekk ko fekk. guerre guerre laa guerre 14 18 loolu laa indi. waaye dof la booy borom ale yaa ngoos ngoos bi déggoo lu mën wax de su xota mu xota yelu ci ne temporairement Casamance maa njaago poto poto man fi may jaar amul sax arrêt da ngay teggi rek da ngay teggi rek si gàttanu yàlla bu laamu ja yàlla may ndam nag incha allah rabi yàlla nañu yàlla na. ok am na solo boobu ba tey nag booy waxuma leen ci côté mobilisation parce que xam naa ne macha allah seen ginnaaw dëgër na côté mobilisation moom woote bi rek lay doon ba tax na Bébé Wally comme dafa guddi mbër yi dee leen ci jàpp di respecter seen ménages yi buñ signatee avenant convoqué leen signature dee leen ñëw ci heure bi leen ko waxee tey retardement am na lool Bébé Wally la ñan ngay woo. Nah, waaw di woo comme benn baraag rek benn bi di woo waa yëmbal waa malika waa Kër Massar di woo sama doom nday yëpp di gërëm samay grand frère ku si mel ni armée générale ñoom ñoo ngi jàpp si lépp jour ñu ya matinalu ànd ak man dem entraînement di nuyu nag dugaa bu jóob de maa ngi koy nuyu bu baax a baax mi ngi jàpp si ji nag boobu ba léegi mi ngi siy jàpp barki Serigne Bamba di wax lamb ji dama bëgg jóob alma bi ma ñëw yëngal esat jàpp booy bi tuma ko ci faay ko daan ko xam nga ne booy bi trompeur waaw maa xam man maa ko bu doole kii kii mënu maa jaaxal si bëre kii ñi ma daara ko gën a yéeme kon feesul samay bët kon moom na rek la rek moom lamb joo xam nga lan si am signe waaw ay signe rek la si am ay réew ak yooyu noonu abe dina xam ne lépp dëgg la waaw di woo nag waa da may may ma woo ñu may jëndal borom ji war a jàpp si lamb ji maa ngi woo nag Baye Fall borom siin maa ngay woo mu ñëw jàpp si lamb ji bu baax a baax doomu nday Mama Ndiaye maa ngay woo bu baax a baax a baax a baax di woo nag Waly général borom France maa ngay woo bu a mu ñëw jàpp si làmb ji di wax dubu taar ceddo bi yaa ngi jàpp si làmb ji mais lépp loo jàpp doyul yaa sa mafia bi yëpp maa ngi gis li ngeen di sonnee si man waaw mafia Diop bi ah maa ngi gis li ñuy sonnee buur géwél waaw tamit gis nga booba tey tamit mi ngi siy jàpp ah di wax gaa yëpp di ñi ma àndal ñoom Xaadim Njaay ñoom Diop Njaay waaw ñoom Seex Njaay ñoom Seex Ngar ñoom Ahmed Gueye ñoom ñëpp ñoo ngi jàpp si làmb ji di nag mooy togg añi quoi waaw mooy togg añi di may nag alpha alpha maa ngay woo mu ñëw jàpp si tigge yi waaw di woo May Thiaw président Aynu maa ngay woo mu ñëw jàpp si làmb ji ba ay waaw amu amuñu ay taalibe lañ moo tax moo tax dañuy siin rek mais bu arbitre bu arbitre par ba taf barrière bu arbitre par ba taf barrière da ngaa xam bi bu saf sàpp bi la bagataas bi la ñun fi jigéen la moo tax mënuñoo ragal yàlla nañ si yàlla yóbbu nañ si yàlla. man sa maam jaara waaw man foofu yëpp maa ko ñaay booy géej waaye maa la foofu nit. walaay jàngee métier boobu moo xam. bagataas kaay bagataas bagataas kaay wooteel. yàlla nañ si yàlla yóbbu jàmm salaam bu nekkee wax nañ fi leen loo xam ñu ngi jégalu baax baax baax baax. di sant nag gros états unis ma xam mbaay waaw sama doomu nday maa ngi woo si laamu ji bu baax a baax waaw di ko wax mu defal ma ay ñaan waaw di sant ñu fa nekk ñëpp nag ay ñoom yi mbaay gaa yëpp ma fiyaa yëpp ma leen sant di la waa ayca woote waaw ñi ngi woo ñëpp baax a baax a baax ku ci mel ni borom daaru borom daaru da siy jàpp bu baax a baax baax di yëkkati alalam di ko def suñu kooku amuñu fayam barki ci mel ni Baara Gueye bu baax a baax Omar Yeya Omar Saw Amadou Xot gab ñu ngi koy woowu baax a baax a baax baax a baax borom di woo ñëpp di woo ñëpp di jox rendez-vous gars yi la kat ku ma limu rek a a a baax kii li mu tuddee doomam sax xamu ko dawul sax woowu barki Serigne Bam ay te joxante leen ma ko Paquetage non attends attends attends demal yóbbu ko